ci Wassare Lamb ñu baax baax di leen ziar di am mbégte ak kontaante comme ni ñu koy defee chaque jour di lundi jusqu'au samedi tey nag di tombeek mercredi décembre 2022 sunu lamb le quotidien des arènes sénégalaises supplément des stades le quotidien du sport opposé à des jeunes combats très ambitieux Balla Gaye 2 et Gris face à l'histoire la lourde mission du lion de face à Boy Niang 2 troisième Tigre de Fass en quête de victoire contre Ama Baldé Jackson 2 met en garde Lat Dior je prêt pour le lutte pour la lutte et la bagarre Doomu Dangu fils de Balla une affiche de toute beauté contre Bombardier le 12 février 2023 premier combat revanche de Tapha Tine Pape Demba sur les derby sur le derby euh, Parcelles Pikine Talfa est favori devant Sokh bu ndaw loolu moo gën a fës si yéen kaay bi di sunu làmb mais avant ça comme d'habitude lay nuyu baax baax Bassirou Diouf salaamaaleykum. waaleykum salaam Mamadou Sène. les ziar. yal na yàlla nangu ziar ci loo ne. sant yàlla bu wér wér. yaa ngi am jàmm. alhamdulilah na jàmm ji yàgg. ñu ngi lay nuyu di la yëpp. leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ñuy ànd ak ñun ci wasaare làmb saa su nekk leen xamal ne dellu siwaat nañ rek ci seen revue des bi ñuy amal saa su ne di lëndi au samedi fii ci wasaare fas yéene di jukki lépp loo xam ne nii fës na ci yéenekaay bii di sunu làmb fas yéene leen koo dëgtal dellu siwaat nañu La saison de lutte avec Frappe 2022 la plus belle avec les combats de rêve attendus entre Balla Gaye 2, Boy Niang 2, Reug Reug, Sa Thiès, Ama Baldé, Gris Bordeaux, Tapha Tine, Bombardier. Ils font en ils font en rajoutant le le succulent duel entre Doomu Dangu de Rufisque et fils de Balla Guédiawaye, une affiche de toute beauté qui risque de bat tous les records d'influenceurs Doomu Dangu fils de Balla waaw affiche bu bu a ngi noonu combat bu rëy a ngi noonu combat bu neex a ngi noonu doomu dàngu ak euh, fils de Balla tey bu ñu sukkandikoo rek ci seen euh, ci seeni combat yu mujj waaw bu ñu sukkandikoo ci seeni combat yu mujj kii di euh, kii di bébé dafa monter en puissance fils de Balla dafa monter en puissance monter en puissance boobu mooy Euh, malgré palmarès bi nga xam ne def na ko mais terewul dafa am ay mbër yoo xamante ne nii ñëpp nangul nañ leen seen mën a bëre ñu nekk ay lutteurs yuy bay seen waar ci lutte avec frappe bi mais ñu gën leen a ràññee ci lutte sans frappe mu nekk mbër yoo xam ne presque tournoi boo dem di nga leen fa fekk wala boo leen tuddee nit ñi danañ xam ne ñii ñu miin bëre simple nañu nga mën cee lim ci mel ni général bu Malika mën cee lim ku ci mel ni góor a soog tey boo waxee général bu Malika rek limité wu si moom euh, dem na fi drapeau chef de l'État représente la région de Dakar nekk seen capitaine euh, nekk na fi sampion euh, boo xam ne nii presque sunu làmb d'or ci lutte sans frappe jël na ko. donc nekk mbër moo xam ne ni daal. ci lutte ci simple bi. non loolu loolu loolu euh, loolu foog naa bu kii bu ANPS bi di def la. Hmm. waaw mooy association nationale pour la presse sportive euh, bi ñuy def di primé Modou Lo nekk na ko fi. lutte avec frappe. donc euh, moom Gora Sock moom kii général Malika nekk na ko fi. Euh, nekk euh, le lutteur de l'année donc nekk euh, mbër boo xamante ni jël na ay tournoi ba sonn toll ay période yoo xamante ne dafa dafa kenn mënu ko laalal suuf nekk champion daal ci lutte sans frappe bi ñu ne la ci lutte avec frappe moom fils de Balla moo ko freiné nga tuddaat keneen muy góor Gora Sock Gora Sock aussi pareil te avant Gora Sock da ngay tudd Ondinga Ondinga xam nañ ko mbëru parcelle la nekk euh, mbër boo xam ne nii ci lutte sans frappe bi mu ngi ci la fois passée rek euh, ca terrain gaal gi euh, def na teew na donc mbëru la moo xamante nii xam nañ ko ci lutte sans frappe donc ñooñu ñëpp da ngay gis ne Fils de la jëflante na ak ñoom ay bërekat daan leen loolu indi benn montée en puissance boo xamante nii indi na ko ci carrière parce que des fois dañuy wax naan mbërum ba pare gars yi duñ leen ñemee jël parce que dañoo mën a bëre. Ah. mais moom mu ngi ciy sëgg. mu ngi ciy sëgg mu ngi jëflanteeg ñoom mu ngi ciy daan donc ñaari kombaay yi mu mujjee jóge muy général Malika beeg góor sok bi wane na ne Fils de Balla am na leneen lu nekk ci kanamam. tey bu fekkee ne doomu dàngu la moom aussi pareil doomu dàngu euh, mbër la moo xamante ne nii bokk na ci génération yu fëlandoo. ñëpp jàpp ne làmb ñi ñoo koy téye ji ñu war a nekk relève ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo ainsi de suite ñoom ñu war a nekk relève yi mu amoon ay naataangoom yoo xamante ne ni tey euh, ñoom ñoo doon partagé ndoo làmb ji ñu mel ni ñoom Nandi Fall euh, ñu mel ni ñoom Marley ah ñoom euh, alamdaar ñoom Naaru Sokaz ñoom Jordan ñoom Feu Rouge ñooñu ay naataangoom lañ yoo xamante ne nii ñoom ñoo génnandoo ñi ci ëpp dafa bëri ak ñoom daan leen. tey bu ñuy fàttaliku combat bi mujj digganteem ak Jordan la mu génn ci ak victoire kon dangay xam ne euh, moom it xale la boo xamante ne nii ci ay maasam teggiwu leen. daan soq waaw daan na Nandi daan na soq daan na Farouz daan Naaru Sokaas daan na Dunxaaf. daan Alam daan Marle ah. daan Boy Malika daan Vandam daan Mandela daan Guinée. am na ay combats yu bëri yoo xamante ni bëri na ko daan ko moom mu toll ci 19 combats 14 victoires 5 défaites boo xoolee ci ay tolof tolofam mu ngi ko am ci digganteem ak Pape Tine Syndicat digganteem ak capitaine Dina digganteem ak gargade 2 Tyson 2 Ramdan ñooñ ñooy ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko freiné ci carrière am léegi nag dañuy am beneen combat bu neex combat boo xam ne tey ci wàllu bëre doomu dàngu moom moom moom moom mën nañ ne. moo gën a yàgg ci làmb moo ëpp ay combat moo ëpp ñi mu tasel ci làmb dix-neuf combats kii onze combats quatorze victoire kii huit victoire donc am na ay ay ay ay ay ay talent yoo xamante nii ñoom ñoo wute ñoom ñoo tase ci bile combat mais li am ba des mooy Fils de la luur la boo xamante ni dafa aay ci luur yi. non luur la boo xam ne dafa aay ci luur gone gu miin entraînement la gone gu tàmm entraînement gu ñeme entraînement la mais xale bu mën a bëre la aussi xale la boo xamante ni sañ-sañ bi ñu doon gis ci Balla Gaye 2 moom la ñuy gis ci moom waaw. déggati la moom tey euh, Boy Niang la indi ne Boy Niang premier janvier na àndoo indi ak witin bu bëri man ak Balla dinañ fa ay yoon waaw ba le premier. mu ne le premier janvier na àndoo indi alcool. ak witteen bu bari waaw man ak Balla Gaye 2 dinañu dinañ fa dem ay yoon ah en tout cas daal bu ardo yàq làmb ji rek làmb ji daal bu ko ardo yàq na na na am ku daan moroom ji rek waaw na jël am rek loolu foog naa looloo gënal ñoom seen <laughs> looloo leen gënal de. ok. Balla Gaye 2 au front en janvier Gris en février 2023 deux cruciaux rendez-vous pour deux champions le 1er janvier et 5 février 2023 seront inéluctablement deux dates intéressantes dans l'arène et très importantes pour Balla Gaye 2 Balla Gaye Balla Gaye et Gris Bordeaux face Ndakaaru ils affronteront pour la première fois des jeunes combattants très ambitieux qui pourraient savourer waaw tey danga tudd ñaari ñaari mbër ñaari champion yi bokk ci génération bi mujje génération bi mujjee mooy am na génération bu mujje woon ci làmb mooy Mohamed Ndao Tyson mooy Baboy mooy Yaxya Joob Yékini mooy Tafa Gueye ñooñ ñoo nekkoon génération bi mujjoon génération boobu dafa am beneen génération bu ñëw détrôner leen. muy ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo ñoom Gris Bordeaux ñoom Ama Baldé ainsi ci génération bu mujj bi yaakaar naa maintenant Bombardier moo ci des ba léegi maintenant Bombardier moo des ci génération bu bu mujj bi ba léegi di bëre génération bi nga xam ne nii moom lañ xale yi créer moom la ñoom Balla Gaye de créé génération boobu Bombardier dafa tàbbi seen biir mais ci génération boobu da nga fay tudd Balla gay 2 muy seen génération muy génération bi mujj instant bi tudd fa tafaatin Tine tudd fa Bombardier tudd fa Eumeu Sène tudd fa Gris Bordeaux ñooñu ñoom ngay tudd ci génération boobu mais génération boobu aussi fa làmb tolloon ba ñoom Balla Gaye am fitu fëgg porte ñoom Yaxya Jóob ni foofu la làmb toll tey ba xale yi am fitu fëgg porte ñoom Euh, Gris Bordeaux et quoi qu'il en soit ñoom ñaar dañuy dem que ça soit muy giri Bordeaux wala muy Modou wala muy Modou Lo wala muy Balla Gaye wala Tapha dañuy dem kan moo ciy dem demu demu demu demu Mouhamed Ndao Tyson kenn xamul kan moo ciy dem demu Yaxya Jóob Yékini kenn xamul kan moo ciy dem demu Bombardier kenn xamul parce que tey Bombardier mooy le seul bi nga xamante ni résisté na ci génération boobu dafa tase ak Modou Lo daan ko dafa tase ak Balla Gaye 2 daan ko am deux fois euh, maintenant Eumeu Sène moo ko ci daan donc mu ngi résister génération boobu ba léegi nii ak Tafatine mu ngi résister génération ba léegi léegi nag le premier janvier 2023 ñu bëri dañoo jàpp ne Balla Gaye 2 day ñëw pour jël si revanche revanche par procuration revanche boo xam ne moo combat ba moo doon dox diggante Boy Niang 2 ak Sa Thiès la 11 mars 2018 alors que certes ñenn ñi mën nañ koo tuddee revanche mais ouverture làmb la li tax mu nekk ouverture làmb mooy da nga doon dégg ay jamono ñu naan làmb pour mu neex il faut ñu def grand contre petit parce que boobu ñoom Balla Gaye seen cercle bi dafa restreint cercle boo xamante ne nii tëju na ñi ci war a bëre ñii ñëpp bëri nañ deux fois ñii bëri trois fois wala ñii di di waaj a bëri trois fois ñi ci nekk ñëpp presque laalante nañ. donc il faut mu am benn benn benn cent neuf boo xamante ni moom mooy ñëw ajouté wu ci cercle boobu pour que combat yi mën a mën a bëri combat yi mën a neex moo waraloon ñuy wax euh, euh, nu ñu koy xeeti sax. grand contre petit mën a waaw ci ci démarche boobu noonu nag ci la Balla Gaye 2 jële Boy Niang mu war a nekk la premier janvier ci la Gris Bordeaux moom aussi jële Ama Balde mu war a nekk le 5 février même ci la Modou Lo moom it jële woon Ama Balde ci la du la jëlee woon Ama Baldé mais grand contre petit bi ki ko njëkk a def ci ñoom c'est Tapha moom mi accepté wàcc bokk ak ñoom Jos Claf bokk ak ñoom Ama Baldé bokk ak ñoom guy gi kooku moom moo njëkk def grand contre petit bi mais heureusement que yéen ñeneen ñi fekk si nañ ko ci donc am na ci ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi xaar seeni bos Bombardier ñu ngi xaar bosam ban xale lay jël Eumeu Sène ñu ngi xaar bosam ban xale lay jël Lac de Guiers numéro 2 moom aussi def na ko parce que tàllal na booy Niang loxo. te waaw Tapha aussi def na ko la voie passée parce que euh, mën naa ne tafaatin moom moom moo ëpp lu muy bëre ak xale yi parce que moom moo nekk ci presque ci port bi xale yi képp kuy fëgg da nga naan. jox leen ma Tapha ci bun Tapha Tine la ñuy jaare fa la Zos jaar sottiwut fa la guy gi jaar sottiwut fa la Ama Baldé jaar mu sotti fa la Boy Niang 2 jaar sottiwut mais cercle boobu noonu il faut mu am ñeneen ñu ci ajouté wu pour que cercle boobu ñu mën a am ay combat yu neex. ma euh, moom moom Tapha Tine sax lay lay le 12 février 2023 premier combat revanche de Tapha Tine le 1er janvier prochain Tapha Tine fêtera ses 18 ans dans l'arène une carrière a débuté en 2005 débuté en 2005 contre de Pikine et durant ces 18 années.

tey Tapha Tine boo ko xoolee fi mu fi mu commencé ak fi mu taxawee presque benn la quatorze victoire nga may limal cinq défaites ci dix-neuf combats yaa ngi wax naan mu ngi débuté en deux mille cinq le neuf janvier bi muy daan Malaw Seras bi muy daan Malaw Seras Malaw Seras bu Pikine en deux mille cinq ci la commencé làmbam fi mu toll nii ci carrière am mbëru Pikine la mujjee daan muy Boy Niang kon euh, moom moom waa pikin daa mel ni <laughs> xam nañu ko mais tafaatin ci biir yaa ngi wax naan mësut a disputé revanche mais tey bu ñu limité woo rek ci ay victoire tafaatin Tine da ngay lim ab champion boo jógee ci Malaw Seras Sa Kajoor 2 ngay tudd boo jógee ci Sa Kajoor 2 Talla Gaynde ngay tudd boo jógee ci Talla Gaynde El Hadj ngay tudd boo jógee ci El Hadj Diouf Yékini Junior moom ngay tudd boo jógee ci yëkkini Junior booy Sey ngay tudd téyel ma turu téyel ma turu Yékini Junior bi le 29 juillet 2007 la bëri ak Yékini Junior daan ko boo jógee ci Yékini Junior booy Sey ngay tudd décembre 2007 après Boy Sey Abdou Diouf mai 2009 après Abdou Diouf Cech mars 2010 après Cech Elton juillet 2011 après Elton Bombardier juin 2012 après Bombardier Guy Gi avril 2015 après Guy Gi Zos janvier 2016 après Zos Yekini Junior encore janvier 1er janvier 2018 après Yekini Junior Boy Niang 2 kon bëri na ak Yekini Junior ñaari yoon daan ko lan la journal bi wax. jël joxe na revanche. waaw joxe na revanche benn yoon ci carrière ci Yékini Junior la daf ko daan. jox ko revanche daanaat ko. dafa daan Bombardier jox ko revanche kon. Euh, bi mooy deuxième revanche am mais revanche am bi mu njëkk a joxe perte ko boo xoolee ay defetam aussi Issapou yi ngay tudd Issapou yi dafa nekkoon ci ay guddeem Issapou yi moo daan Balla Gaye première defetu Balla Gaye 2 ci Issa Pouye la ko jële première defetu Tapha Tine ci Issa Pouye la ko jële kon Issa yi mbër la moo xam ne dafa amoon benn statut mën naa ne bu particulier boo xam ne nii ak mbër moo mën di nekk ak lancé boo mën di nekk boo ñëwee ci moom da ngay am ay difficulté parce que dafa mel ni moom euh, moo ngi daan euh, le 10 décembre 2006. waaw daan Malaw Seras daan Saa Kajoor daan Taala Gaynde. non boobu boobu Malaw Seras la daan Saa Kajoor 2 Gaynde. ak El Hadj ñoom la daan muy 4 combats 4 victoires mu taseeg Issa Pouye Issa Pouye freiné ko. mu amaat defetam en deux mille 2007 contre Lac de am defetam contre Bazoka en 2009 am defetam contre Balla Gaye 2 en 2013 am defetam contre Ama Baldé en 2015 donc 2015 ba léegi nii Boy Niang euh, euh, Tapha Tine amaatagul mille quinze boobu bi mu ca jógee parce que mille 2015 moom la am defetam ci Ama Baldé bi mu jógee bi mu jógee ci Ama Balde ci la ci la ci la ci la bëre ji ak Zos daan Zos daan Yekini Junior daan Boy Niang mu jógee ci défaitam contre Ama Balde trois combats ci tegaat trois victoires kon moom it champion la boo xamante ne nii vraiment euh, ku liir euh, palmarès am di nga ko respecté.